dëgg la jox ko def nak ay en di waxtaan ak ñoom parce que Descos dafay dugg toj kër yu bare 500 maisons ñu démolir ko bi ñu defee loolu nag ñu jug ñun seeti autorité yi waxtaan ak ñoom def nañ ci ay amul kilifa gu nekk Sénégal fii ku dul président de la République Macky Sall dugg nañ sa bureau moom rek la ñu dugagul biir présidence premier ministre d'alors bi fi nekkoon Mahammed Boun Abdallah Dionne dugg nañ biroom toog nañoo waxtaan ak moom ba ay décision yu ferme génnoon ci muy que ni li ci njëkk muy site bi nga xam ne moom la ñuy wax site primature fa nga xamoon ni coopérative de la primature da koo jëloon Mohamed Boun Abdallah Dionne dafa jël décision ne loolu delloo na ko occupant yi nga xam ne ñoom ñoo nekk Tivaouane Peulh loolu ba tey ñi nga xaar acte yi nga xam ne moom moo koy firndeel demoon nañ fa pour tàmbali travaux bi descos ñëwoon fa ba jàppante naroon faa am mais ñun autorités yi dañu laaj ñu dellu ginnaaw ñun ñu delluwaat nga xam ne moom mooy impense yi mooy ñi nga xam ne dañoo tojoon seen kër te ñu ne tali bi tamit dafay jaar ñooñu tamit ba tey préfet ñëw na fi ànd ak commission commission de recensement bi ñu recenser ñëpp ba tey urbanisme def na calcul ba ñu transmettre dossier yi mais ba tey ñooñu tey aussi mënuñoo jot seen dàmpaay beneen bi nga xam ne moom moo ci gën a doy waar mooy fi ñu naan surtout Sipres bi Sipres dafa amoon benn assiette bu 100 hectares bi DESCOS di toj nee na day toj a jàll ci 40 parce que dañoo gis ne 40 yi dëkkee nañ ko ba mu jeex tàkk mu ne 40 yooyu nga xam ne occupé nañ ko dëkkee nañ ko na ko des bàyyi ak ña fa dëkk ñooñu dëkkee ko président Macky Sall ñu ni ko victime ñi nga xam ne dañ leen a seen kër lañ bëgg sit bu ñu leen dugal ci veillu élection yi président Macky Sall jox Birima Mangara ministre budget bi fi nekkoon jox ko ndigal mu ni ko nañu jox victime Tivaouane Peulh 20 hectares ci ne moom la CEPRES joxe ci la ñu booleeg service technique yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ànd ak le ñoom service technique ñoom ñoo choisir benn endroit nañu fii moo libre fii la ñu gis ni moom mooy site bi nga xam ne mën nañ faa recaser victime Tivaouane Peulh bi ñu jëlee loolu travaux yu tàmbali dossier bi service yi ko validé yëpp validé ko muy urbanisme di cadastre di domaine ñoom ñëpp ñu validé ko ba travaux yi tàmbali victime yi am yaakaar commencé am yaakaar ni dinañ amaat ay pàq yoo xam ne dinañ leen fa mën a dugaat pour mën a yeggali seen liggéey mais bi ñu demee ba ci biir dañoo ñëw arrêté ñu eaux moo ñu arrêté woon prétextant que ñun dañoo dugg ci périmètre forêt bi mais dañoo dem ba ci biir gis ni la taxone ñu arrêté ñu du cadre aux et forêt mais il paraît que service technique ñu ñoom ñoo muy ñetti ñi ñetti service yi cadastre urbanisme ak domaine sen chef de service ñom ñofi ñew and ak ñun ci site bi ñu ñu dañoo jot ndigal ci le ministre Abdoulaye Daouda Diallo mu xamal leen que ni Macky Sall nee 20 hectares ya joxone collectif victime yi jëlaat na ci ñom delloowaat nako Anaba ñun nak loolu lañ xamul tay ci ban état lañu nekk

ñun rescapé yi nga xam ñom ñoom ñoo nekk fii Tivaouane peul ñun victime de démolition wu Tivaouane Peulh vingt hectares yoyu buñ ñu ko jox delowul ñu def ko ay dekk dëkkuwaay dëkkee ko kit à ce que ñu lotissé ko def ko cimetière tuddee ko baqiya dem tëdd fa. fii ak une semaine lañ wax fi ak une semaine yalla mi ñu tiim xam nañu bu jotul avancement ci suñu dossier kit à ce que ñu jël suñu suñu kër jàpp ñu baa ñu fekk ñu fuñu mëna fekk rey ñu dinañu dox jëmele impôt et domaine bi ci nek Rufisque bu ñu fa demee amuñu lu ñu bëgg dinañ fa jugewaat dinañ dem direction des impôts de domaine de Dakar bu fa jugee amuñu lu ñu bëgg place de la République la ñu jëm jàkkaarloog li nga xam ne moom mooy Macky Sall fekk ko fi nga xam ni ñu ñoo ko moom lu ko ko moom mu nekk fa ñu fekk ko fa jàkkaarloog moom wax ak